salaamaaleykum euh, man la Ndari Diouf euh, maa ngi bëggee ñëpp ñu ni seetaan di leen wax ne ñu ngi fii tey ci biir Saint-Louis TV fas yéene waxtaan ak ñoom ci lépp loo xamante ni dafa jëm ci suñu carrière merci beaucoup. salaamaaleykum man la Hajar maa ngi nuyu ñëpp di remercier Saint-Louis TV pour invitation bi di xaar seeni question yee Ndari Diouf benn jeune la boo xamante ni xam nga mën naa ne ci biir région de Saint-Louis la dëkkee maanaam li ñu naan diwaanu dex gi. li ko dalori Château ba pendar ndar xam nga nekk jeune teni xamante judu dafa aussi di def musique xam di ci dox ndànk-ndànk doon ci Baay Faal xam di ci déglu ñëpp nag xam nga benn instant waaw nek ci yoon wi dal ok depuis kañ nga dugg ci wàllu musique. bon musique ci na dure parce que duré na duréwul parce que mën naa ne ci li momoi aferu moom mooy ci troupe bu mel ne ASC Maison Blanche def naa fa cinq ans di woy ay chœur d'ouverture théâtre et ci laa jóge jël fa cinq ans yëpp voix d'or après ci laa jóge foofu noonu tàmbale def musique musique bi mën naa ne bi ñu ko tàmbalee def mi ngi toll ci ay 2009 2008 carrément commencé def suñu carrière. pare ngi waajal benn album est si ñu ngi waajal album bu war a génn ci novembre bii ñu jëm. euh, album bu nara doy war album bu gëj senegal lay wax ñu ngi koy wajal té inshallah novembre lay génn album bi mi ngi tuddu guddi té buñ ci aggé inshallah allah yépp yëpp ñu xamné aussi liggéey nañu lu yàgg dal ok mu melni ci biir loolu aussi yaa ngi ciy yaa ngi ciy amal suñu kilifa muy euh, Mamadou abar jam est-ce que mën nga ñu ko ci ko ci li nga xam am nañu. yee tonto Xaban cham kooku bon yàlla moo ñu boole ci ay anam yu doy waar aussi yàlla def na ni aussi mën naa ne bi muy génn àdduna bokk naa ci ñi nga xamante ni maa mujj nekk ak moom donc mu def lu rëy ci musique Ndar mën naa ne fii artistes yi fi nekk mooy kuy jouer instrument ak kuy woy ku nekk Xabaan Thiam def na am na lu mu def ci sa carrière et en plus nekk nit ko nga xamante ni ci biir ndar mën naa ni nit surtout ko ci wàllu musique ba noppi mu wàccee boppam. si omage bi li ko waral moom mooy xam nga li ñu naan euh, am na ci ñoo xamante ni ay bibliothèque lañu te bibliothèque bu daanoo maanaam nit ñi dañ koy yëg te nit ñi buñ ko yëgee. Euh, ñi ko war a wax ni manké nañu li dañ koy fësal maanaam da dafa nek yoon ku melna na cham genn aduna ndar sargal ko parce que xamu numu ko mën a amna ci yo xamanteni ni mi ngi ci mom mën ni sax man ko bi mo togal moko ko xam mais euh, ku ndar wara sargal la xaban cham mën ni tay si tay tey da nga waroon jaar ci ndar benn rue ñun la fi mooy rue Xabaan Caam daf fi waroon am tur parce que daf ko fi liggéey donc hommage bi dama def juste sama participation euh, ci album bi mais am na ci lu bëri lu nga xamante ni mën naa ni des na su fekkee ni autorité yi ñu ngi seetaan ñoom ñoo ko war a mottali mooy Xabaan Caam dañ ko war a dégg ci kaw a kaw a kaw warul daanu donc Momodo Habancham, déjà euh, c'est un, artiste complet. C'est un artiste complet, c'est un pianiste, musicologue, professeur de musique. Il est euh, Saint-Louisien avant tout. Il a fait ses études au Conservatoire de Dakar. Mhm. Et après avoir fini ses études au conservatoire de Dakar, il faisait partie des meilleurs de sa génération. Mhm. Alors au lieu de rester au Sénégal, le Sénégal lui a donné une bourse pour continuer ses études au conservatoire de Versailles à Paris. Alors il est allé au conservatoire de Versailles, il a fait une thèse en poids et contrepoids euh, encadrée par un prix de Rome. Et les prix de Rome, c'est tous les 100 ans qu'il y a des prix de Rome partout dans le monde. Et au lieu de rester en France, il s'est dit, moi, il faut que je rentre servir mon pays. Mhm. Il est rentré au Sénégal, et quand il est rentré, c'est devenu très très... Enfin, ça a été très très dur pour lui parce qu'il n'a pas été accepté. Il a, il a rencontré beaucoup de difficultés. On lui a dit que qu'il n'avait jamais eu de bourse, il a eu, il a eu plein de problèmes avec l'administration sénégalaise et du coup il a été radié de la fonction publique et il s'est retrouvé dans une situation précaire. Mais il n'a jamais laissé tomber, il s'est toujours battu pour la musique parce qu'il aimait beaucoup la, la musique est son pays avant tout. Mhm. Donc il fallait qu'il euh, qu'il mette sa pierre à l'édifice. Et pour faire cela, il est rentré à Saint-Louis du Sénégal euh, sans rien du tout. Et il a, il a commencé... Euh, enfin, il est allé de rien pour aller très très très loin. Il a décidé de créer le festival de jazz de Saint-Louis du Sénégal. il est resté comme ça avec ses amis et il s'est dit que ce serait bien de créer un festival de jazz en août pour permettre aux Saint-Louisiens de connaître la culture du jazz, de connaître la culture de la musique. Alors le premier festival de jazz a été organisé un 15 août mhm. avec ses amis. Il a créé un staff, il a créé la première édition du festival de jazz. Après il a créé la deuxième édition du festival de jazz. Et après cette deuxième édition du festival de jazz, il a été convoqué par le Centre culturel français, l'Institut français de maintenant, et l'Institut français voulait une collaboration entre, les deux structures, entre Saint-Louis Jazz et, l'Institut français pour organiser un autre festival de jazz. Sauf que ce festival de jazz-là se faisait en août, ce qui n'arrangeait pas l'Institut français. Alors il voulait que l'équipe change la date. Sauf que tout le monde n'était pas d'accord. Alors mon père, il n'était pas vraiment d'accord, il voulait garder cette authenticité mmh. et il a refusé de collaborer avec l'Institut français. Et il y a d'autres personnes qui ont rejoint l'Institut français euh, pour continuer cet esprit festival de jazz. Mmh. Mais lui, il a toujours considéré que c'était un enfant qu'il laisse grandir. Donc même si c'est lui qui a créé le festival de jazz, c'est pas pour autant qu'il va empêcher ce festival de jazz-là de grandir. Mhm. Et après, l'Institut français, avec l'aide de ces gens-là, a pu développer le festival international de jazz qui est devenu le festival qu'on retrouve maintenant à Saint-Louis. Ah. ah. mais Ndari, je pense pas que c'est n'importe quel jeune artiste. Je pense que d'homme spirituel le monde parce qu'il aimait beaucoup Nari, il il aimait beaucoup le talent de Nari. de faire reconnaître Nari, ne de faire allah dafa a te talent donc Nari, lii la mën a def pour pour remercier que si parcours bu am ñom ñaar ak pour délo ko njukkal. Mhm. donc je trouve que c'est très noble de la part de Nari. et c'est c'est une chose à magnifier à, à à magnifier tout simplement. Mhm. ok yamul ci loolu ngeen mu retourné benn clip. waaw mu ñëw tamit pour ngeen ànd si tamit. loolu yëpp mu doon ay mbégte. Wow. ndari euh, enfin Cher ak ndari ma contacté pour voir ma ni de rendre hommage sympa. j'étais très très contente parce que fierté la mhm. et puis en plus ñu bëgg également ma ci clip pour me exprimer voir si ça me pape. c'est c'est une très belle opportunité et c'est un très beau message et je, leur, je les remercie vraiment pour cela. Mhm. Moi je fais du slam alors apporter ma pierre à l'édifice c'était vraiment

waaw bon bi may inspiré wu ci moom mën naa ni lu naturel la lu ñëw ci man nekkul sax lu nga xamante ne dama ci tëju di bind wala di kii affaire yooyu noonu c'est juste que ni man ak moom dund nañu benn moment ba nga xamante ni ñoo ngi jóge Louga bi ñu jógee Louga waroon ñibbi si Saint-Louis bi ñu ñëwee ba ci yoonu yoonu yoonu raw bi fa la ñu defee accident accident bi am na yeneen musiciens yu ci nekkoon ku mel na Grand Baba ku mel na Birahim affaire yooyu noonu ñoom ñu ngi ci woon man aussi maa ngi ci woon ñun ñëpp ñu blessé donc moom yàlla def biñ ko biñ ñu indee ñun ñëpp hôpital ci ci ci fajar gi yàlla def euh, li ci moom donc man bi ma tëddaatee tëdd naa trois mois mais bi ma tëddee trois mois après bi ma jógee concert bi ma njëkk am institut français la maa ngi doon woy mosu bu tudd mag matt ba muy jaaroo su màggee ba muy ndaw la koy taxañ te donc morceau boobu dama ko daan woy euh, ci répétition yi moom mu wax ma ni ma sa morceau bii nii dina xewi ci morceau bi ma ko hommage tey moom moomu njëkk wax ni ma sa morceau nii dina xewi et en plus que bi may woy xàbbaan ci biir morceau bi préparé wu ma ko dama ko woy dama ñëw ci ci ci bi ñu commencé jouer affaire yooyu noonu après ci biir harmonie yi ma am ay affaire yu ma ciy dégg ma woy ko après noonu la woy bi ñëwee ci man ma pare nit ñi rafetlu ko après vidéo bi génn ma dégluwaat morceau bi xam na ni lii nii yoon lañu ñu dugal ko studio pour euh, def ci hommage Xabaan aussi Cheikh gën ci jàpp mm-hmm. parce que mën na ni Cheikh mo gëna tax taxaw ba lolu sax dugg ci album bi parce que mom moma xamal ni ma ku melna xaban mm-hmm. du génn aduna ñun ñuy def album te defuñu ko ci biir mm-hmm. parce que xaban tay ci tay limu moy mooy doon wax rek limu mérité ci ndar dafa bëri liko wa ndar wara a dafa bëri torop nga daan dund ak mom dem tey nekk bi nekk ak yow ñu dund ak moom hmm? liggéey boobu hmm? waaw bon comme ni ma mën naa ne bët yi ma doon xoolee tonton xaabaan donte jigéen la moom laa koy xoolee parce que man ak moom même bi ñuy ànd ñoo voyagé ndoo bokk benn vol bi ñuy dem Suisse bu ñuy ñëw bokk ñu avion mais dañu doon dund comme frère et bu ñu demee Suisse aussi tamit. Mm-hmm. du ma bëgg mu xiif du ma bëgg mu mar man moom it noonu la ma doon toppatoowee. Mm-hmm. te tonton xaabaan bi mu fi nekkee di dund mën naa ni bu ñu daan toog répétition bu ñu mujj a toog. man la ci daan man la ci daan gën a xool lan moo ma manqué pour ñu defal ma ko parce que daf ma gëmoon tellement que mooy loolu. album bi lay génn. album dina génn 10 dina génn le trente novembre incha allah. institut français lay amee te ñu ngi ciy woo région de Saint-Louis ndar yi nag dafa nekk artiste boo xamante ni nekkul ndar laa dëkk waaye waalo laa dëkk parce que sama cosaan Richard Toll la. sama yaay fa la bokk ndar sama cosaani papa la sama papa fi la bokk donc dafa nekk ñaari dëkk yoo xamante ne bu ci nekk dama fa bokk te bokkoontuwuma fa waari chatol aussi bu ñuy ñëwee seen doom la ñu fekk si 30 novembre lay doon incha allah mhm. institut français bi lay amee Je euh, vous invité nous suivre Ndari, suivre évolution album b parce que artiste bu mag lay remercier cher pour apport bimou am ci et puis di remercier à Saint-Louis TV. Liguey <laughs> texte sans état d'âme pas de texte lyrique non texte sans crise de larmes texte d'une puissance mystique oui texte surdoué, plongé dans les tréfonds de l'injustice, texte malmené, texte qui venge les supplices. Supplice du manque, manque perpétuel de leader. jeunesse absente, jeunesse en crise, jeunesse vendetta, jeunesse ne sais pas, jeunesse n'attend pas, ne sais pas à qui se fier pour mener le combat de l'espérance, jeunesse en croissance, grandissant dans la méfiance, Texte sans état d'âme, pas de texte lyrique, non. Texte sans crise de larmes, texte d'une puissance mystique, texte surdoué, plongé dans les tréfonds de l'injustice, texte malmené, texte qui venge les supplices. Salam alaikum. Yeah, man, du content ci émission bi di len encourager aussi yeen ñi nga xamanteni ay jeune ngeen xama dafa len ni sen loxo quoi yeen a ngi jëm dugg ci affaire yi xol tek sen bop te ñepp ci ni lañ tambalé donc di jox ñëpp aussi rendez-vous 30 novembre institut français. dëgg maatiit maatiit maatiit ci jamono bi lee léeg-léeg da lay tooñ ba noppi tëjlu laa ëpp la doole te amatuma mënatuma xamatuma dañu ma soppi te amatuma ñu wàcc ma fii ci kaso yi nii. ma dara nañu ma ubbi ma dellu ca njaboot ga ñoom ñoo may xaar waaw morceau boobu mooy kaso mi ngi ci biir album bi day wax ci ñi nu tooñ tëj leen fàtte leen jugé jaajëf bége jaaraama <laughs>